بلغنا الله واياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والعون على الصلاه والصيام وتلاوه القران اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وانتم بالف خير ndokkeel ci weeru koor bi di leen ziyaara ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te nangul nu eh, xam naa ci lu gàtt rek dañ leen di présenter programme bi nga xam ne nii xëy na miin ngeen ko eh, at mu jot ci waxtu wi bu ñu tollee ci weeru koor wi ñu di ko amal muy loo xam ne nii nag dafay ñëw di benn pàcc bu bokk ci liggéeyu daara ji eh, muy loo xam ne nii tasaare xam-xam la Euh, daara ji dafa yittewoo loolu ba tax na euh, kuréel gi nga xam ne nii moo boot ñépp ñu génne woon ci daara ji ñoom ñoo am benn kuréel boo xam ne ni ci biir mbootaay googu la nekk ñu dénk ko lépp lu aju ci wàllu xam-xam ñoom ñooy féetewoo ak collaboration bu ñuy def ak euh, daara ji di amal at mu jot programme boo xam ne ni dañ koy def ci weeru koor wi fii ci jàkka ji muy semaine bu jot ñu woo benn borom xam-xam boo xam ne ni dana ñëw moo xam euh, ci biir daara ji lay jóge wala ci biti daara ji lay jóge waaye dana ñëw fii euh, jàkkaarloo ak mbokki jullitam yi nga xam ne ñoo nekk fii ci daara ji ak ñu koy dégg fu nekk euh, ñu tànn ay thèmes yoo xam ne ni gis nañ ne thèmes yi yu ñu soxla la ci jamono waaye itam jàngkat yi soxla nañ ko ndax barabu jàngukaay la mbokk moomu ñuy woo bu ñëwee traiteel ñu ko ren nag am na ñeenti thèmes yoo xam ne nii moom lañ euh, fas yéene euh, amal ci weeru koor wi thème yëpp du am njëriñ yi nga xam ne comme ni ngeen ko gisee ñu taf ko euh, thème bi thème mu bi duma ci dugg du ma dugg itam ci ki koy présenté ndax am na modérateur Oustaz Thierno Kayre lañ tànn mu defal ñu war ñoo defal thème bi modérateur bi dana leen jox thème bi ak ak ki koy présenté waaye li ñuy tax ñu jël kàddu rek mooy gën a soññ nit ñi ñu xam ne lu toll nii bu ñu koy def euh, nañu xam ñi koy defal nañ ko fonk bu baax a baax ndax xam-xam fu ñu koy tasaaree indi ko ci barabu xam-xam war nañ ci war nañ ko fonk bu baax a baax war nañ ko fonk te xam ne lii dafa nekk lenn loo xam ne nii ci liggéeyu daara ji la bokk sëñ bi jox ko yitte lool jox ko yitte lool ñi ko dénk itam jox ñu jox ko yitte lool moo tax kon ñi ñu koy defal itam nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ba saa bu jotatee bu ñu nee bu buñ jullee tàkkusaan la ñuy tàmbali ñu fexe ba bu ñu julli tàkkusaan fekk ñëpp a ngi fi buñ jullee ba pare temps bi bañ a raw comme xëy na tey yoon gu njëkk la mën naa am lii moo tax ñu ngi ciy jégalu ci retard bi nga xam ne ni moom lañ euh, observé waaye ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax xëy na mën naa am mën nañoo bañ a nañ fexe daal ba fu ñu rek fekk mbooloo mi yemb na ñu war a def euh, taxawee liggéey bi itam li ñu waroon taxaw lépp yemb na kon loolu lañu doon ubbee rek di sant bu baax a baax xale yi nga xam ne ni ñoo taxaw ci organisation bi bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla jox nañ ko seen lépp ñu ngi leen ci sant leen gërëm di ñaan yàlla mu defal leen euh, tawfiq kon dañuy jox ki nga xam ne ni mooy euh, modérateur bi jiite jalsa bi mu présenté euh, conférence bi ak conférencier bi muy oustaz Mamadou Faye asalaamaaleykum bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen baal àq te di leen baalu àq di leen ziyaare ci weeru weer wu tedd wi ñu nekk ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala mu nangul ñu suñ koor te nangul leen seen koor jéggal nu suñuy bàkkaar eh, mu eh, suñ temu tey nag ma ngi nekk al unf zahiratul unf fi l mujtama yi mooy phénomène bi nga xam ne moo am ci violence li koy waral ak solution yi nga xamante ne si moom la ci conférencier bi war a indi eh, violence nag buñ ko waxee muy ërtal bu ñu ko doon firi ci wolof dañuy wax mooy ërtal mooy ërtal nit ërtal ko euh, moo xam danga koy ërtal nag ci ay wax wala danga koy ërtal ci ay jëf mooy teg ko ca loo xamante ne sii teguwut topp ko ca ba àgg ca ak moom foo xamante ne sii yoon mayu ko euh, loolu mooy suñu tem waaye ki nga xamante ne si moo ñu koy bëgg a defal dafa nekk kenn koo xamante ne si ci ñun la bokk nga xamante ne si ci barab bi la jànge ba wattoo fi alquran comme ni ko ay moromam yu bari defee eh, jàng fi xam-xam étude de base am fii la ko jàngee nga xamante ne si ëllëg fu mënoon a dem ci àdduna bi wala fi mu jaar fépp dafa doon mottali rek waaye parce que lépp lu mu gis rek commencement bi wanoon nañ ko ko fii mooy al oustaz Thierno Kayre yàlla def mu dem fu ñuy wax Masra Égypte foofu la àggalee njàngam euh, ci al azhar jaamiatul azhar ba am fa licence am ci kulliyatu dirasat al islamia wal luga al arabia madinatu nasr kooku mooy ki nga xamante ne si moo fas yéene séq ak ñun tey waxtaan wi euh, kon ñu may ko nopp déglu ko bu baax ndax lii muy waxe nii yaakaar naa ne thème bi ñu indi ak fi ñu ko indee nekk na loo xamante ne si am na munaasaba bu ñu xoolee nag unf ci alquran danañ ko gis léeg-léeg ci yenn aaya surtout booy xool diggante xissatu yontu yàlla Muusa alayhi salaam ak firawn ndax gis boo demee ci suratu Gaafiri yàlla ma ngi wax fu naan yaa xawmi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard fa man yansuruna min ba'sillahi in jaa'ana kan moo may dimbale tey de yéen a yor pouvoir yéen a yor nguur lépp ngi seen loxo ana kan moo may dimbale ci mbombum yàlla mi mi nga xamante ne si moom la wàccee lan la ko tont qaala firawn yonte kii Moussa ah, firawn dafa ne ma urikum illa li ma leen wax rek wa ma ahdikum illa sabila rachad rachad li ma leen teg nii itam mooy yoonu njub kon bàyyiwul xel ñi nga xamante ne si ñoom la bokkaloon société bi ma illa naf yoog isbaat kon loolu lu muy tegtale mooy genn wàll tuuti ci rëy nga xamante ne si ki ngay wax doo ko may dara loolu euh, dafa bokk ci yi nga xamante ne si day waral ay nit di jàppante dana am nag verbalement day am ci ay wax ci ay wax nit dana wax ba ëppal ci nit waaye nit itam dana jëf itam ba ëppal ci kon ñaar yépp benn baaxu ci yaakaar naa suñ dégloo al ustaas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 allazi laysa duunahu muntaha wala waraahu marma alzahiru la taxayulan wala wahma albatinu taqaddusan la udma wasia kulla cheyin rahmatan wa ilma summa salaamaani al atammaani al akmalaani al adwamaani al mutalazimaani ila yawmi yubaasuun ala alxabibi mustapha tibbi alqulubi wa dawaiha wa caafiyati alabdaani wa shifaa'iha wa nuuri alabsaari wa diyaa'iha alladi zakka allahu caqlahu fa qaal maa dalla saaxibukum wa maa gawaa wa zakka mantiqahu fa qaal wa maa yantiqu can ilhawa wa zakka mucallimahu fa qaal callamahu shadiidu lquwaa wa zakka basarahu fa qaal maa zaaga albasaru wa maa tagaa wa zakka sadrahu fa qaal alam nashrah laka sadrak wa zakka kullahu fa qaal wa innaka la ala xuluqin azim wa ala alihi wa sahabatihi alghurri almayamin wa man daa bi daawatihim ila yawmi ddin summa amma baad ixwata alkiram shuyukhuna alafadil nulqi ila masami'ikum atyaba wa a'tari tahiya wa hiya assalaamu aleykum taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci sangu-sangi muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi ndokkeel jullit ñépp ci weeru tedd wi weeru yiw wi ak weeru barke mooy chehru ramadan di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp loo xam ne def nañu ko fi ci yiw yàlla nañu ko yàlla fulal comme ni ñu ko dige yàlla na weeru koor bi nekk suñu ubbi ko yiw ci àdduna waaye suñu texe ëllëg ca yowmal xiyaam Eh, ginnaaw bu ñu leen ndokkeelee di nuyu suñu sëriñ ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ak ñi teew ci mbooloo mi yépp waaye di jiital ci nuyoo bi sëriñ bu mag bi Cheikhuna maxtar Makhtar Nallo ak rakkam ju baax ji Cheikhuna Ahmadul Fadil Lo ak ñi koy jàppale ñépp di ñaan yàlla bàyyi leen fi yàggal leen fi lool waaye wéral leen tey nag dinañ am mbégte lool dellusiwaat fii ci bërëb boo xam ne eh, mooy suñu waay di jéema nab nabi ci benn thème boo xam ne actualité la loolu di ci sant ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite eh, lu jëm ci wàllu éducation ak science ci daara ji euh, thème bu ànd ak jamono la mooy lu ñuy tuddee violence jamono ji ci jëf ak ci wax ak ci métit lu yépp gis nañ dañ ko daan dégg rek di ko seetaan ci télé yi waaye dem nañ ba ci yàgg ñuy jàkkaarloog moom daanaka daanaka sant wu ne wala ku nekk rek am na sa mbokk moo xam ne mën naa am def nañ ko lu ko naqarit ci lu jëm ci wàllu violence lu ju ci lu dut yoon wax nañ ko ko ci kàddu muy dégg walla ñu jëf ko ko wala lu jëm ci liberté ñu téye ko mooy ne kon daanaka ñëpp dund nañ ko boo ko dundut sa mbokk dund na violence nag lu yàgg la ci àdduna bi depuis ca yent yàlla aadama alayhi salaam boobu la violence commencé ci diggante qaabil ak haabil qaabil jël violence teg ko ci mbokkam mbokkal ndey ak baay rey ko ginnaaw loolu yu bari jaaraat na fi ci ay violence ci ay fitna dal ci kaw nit ñi waaye daanaka bi ci gëna a rëy ba nga xam ne ñu bari duñ ko fàtte duñ ko fàtte mooy première guerre ak deuxième guerre nga xam ne daanaka li ci dee ci ay nit kenn xamul lu mu toll li ci yàqu ci àdduna bi kenn xamul lum toll àdduna bi li mu ci subir mësu koo subir daanaka ci benn guerre violence boobu nag buñ ko bëggee xam comme ni ko a sayid al muqaddim waxe oustaz Mohamed Faye ci olof mën nañu wax ne moom mooy ërtel wala sax ñu koy tudde rek fitna benn yoon mu jeex fitna lañu gën a miin waaye moom violence dafa am ay baat yoo xam ne ñoom la nuróol yoo xam ne daanaka sax mënuñ leen a tàqale ndax ñoo bokk ay effet ñu bokk lu ñuy def fitna ak aw ay ak jalgati ak tooñ daanaka baat yooyu yëpp seeni effet ñoo bokk waxin wi moo wuute ak mën naa am jëfin bu ñu bëggee xam lan mooy violence rek nu ko psychologue yi nan lañ ko fire comme ñoom ñooy jàngat nit dañuy wax ne rek jikko joo xam ne nit ki bu koy jëf intasion mooy lor moroomu nitam yéeneem mooy mu lor moroomu nitam mën na koo lor ci wax waaye mën na koo lor ci jëf léegi waaye lorin wa effet ba muy def ci nit ki moo tax boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñooy jàngat nit ne ci loolu mën nañu wax ni violence ñetti façon la am na lu ñuy tudde lu ñuy tudde violence psychologique psychologiquement dañ ko violente léeg-léeg nit nekk ci kër wala ñaari nit nekk ci kër ñu bokk ndey ak baay kii yàlla dimbali ko mu am wërsëg am xaalis lool keneen ki yàlla dimbali ko amul dara waaye dañuy gis ne psychologiquement kenn ki ñu ngi koy gaañ ci xol léeg-léeg bu nekkee mag sax responsabilité yi ñu ko war a jox duñ ko ko jox la moom dëgg àqam duñ ko ko jox loolu façon violence waaye fi violence psychologiquement ñu ngi koy gaañ bëri na am na ci diggante jabar jëkkër ak jabar léeg-léeg jëkkër di gaañ jabaram di ko di ko violé di di di jëflanteeg moom jëflante bu baaxut wala mu ignoré ko du wax du jëf waaye mu ngi koy gaañ te moom yëgu ci biir société bi itam léeg-léeg ñi ñu jiite gaañ la gaañ ñu ñun te duñ ko yëg man ma nekk benn góor góorgóorlu nekk di taqale chaque jour góor góorlu naa ba ubbi sama benn atelier menuisier wala ma ubbi sama ma nekk tailleur di góor góorlu ba ami góor góorlu naa ba organiser sama dund chaque jour bu ma demee liggéey dinaa fexe ba am fa ñeenti téeméer bu ma amee ñeenti téeméer gaaw yónnee ko njaboot ga ñu daat ciy dépense buñ ci dépense on daanaka añ ba sax du neex bu baax waaye rek dinaa joxe dépense ma xëy suba bi ma xëyee suba ñëw atelier di yaakaar deux millions yi rek ñu daat ne ma léegi kat saaku ceeb bi nga daan jënd wala walaatu diwlin bi nga doon jënd mu doon jar quatre cent léegi six cent lay jar léegi mu ñëwee ci atelier bi du ma xam lu may liggéey kooku nit violé na ma psychologiquement violé na ma maanaam violence la boo xam ne nit da koy def te ki koy def sax man naa am du ko yëg moo tax souvent moom mooy gën a jàpp nit violence psychologique boobu mooy yóbbee nit ki mu jóge fa dem ci lu ñuy tuddee violence verbale bu nit ki bu dencee li nekk ci xolam di ko métit lu ba sonn mënatu koo muñ da koy génne bu koy génnee nag nam koy génnee mën naa bañ a neex mën naa nekk ci ay wax ci wax ju ñaaw mën naa nekk ci saaga mën naa nekk ci xaste mën naa nekk ci euh, wax loo war wax waaye bu demee ba wax ko mënta faj itam léeg-léeg mu àgg ci beneen bi nga xam ne souvent mën naa génne nit ki àdduna moom mooy violence physique mooy fitna boo xam ne dóor da ci am walla rey am ci wala yu demee noonu wala gaañ blessé dam yooyu yëpp mën na ci am ñetti violation yooyu yépp nag ñu ngi koy gis islam def ko dénoncer complètement nee na ñetti violence bëggu ci benn euh, yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran nan wala taatadu inna allaha la yuhibbu almu'tadin bu leen jalgati bu tooñ tooñ nag ñett yëpp dugg na ci biir tooñ nit ki nangu àqam ba gaañ ko ci xol waaye tooñ nit ki ci ay wax wax ko loo xam ne waru ko wax waaye tooñ nit ki ci dóor ko wala nga gaañ ko wala nga damm ko ñett yëpp yàlla da koy tere bu dee wax yàlla subhanahu wa taala nee na laa yuhibbu llahu aljahra bi suui min al qawl yàlla bëggul kuy fësal lu ñaaw wax ju ñaaw nëbb ko moo gën waaye bu ko kenn fësal niki noonu itam yaa ayuha allazina amanu loolu ci société bi la laa yastar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum bu kenn saboote sa morom ba mu jàllee ca biir aaya ba sax da koo gën a wax ne wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum bu ay ayibal seen bopp nit ki naka lay ayibale boppam mooy ne jullit dafa war a jàppe moroomu jullitam comme moom bu ma la ayibalee yow sama moroomu jullit rek mu ngi mel ni ayibal naa sama bopp waaye mën nañ cee dégg ba tey nit koo ayibal rek am na lum la dencal nit koo ayibal moom itam am na lum la dencal bul ayibal sa bopp luñ ci jublu mooy boo waxee nit ki lu ñaaw dala koy delloo waxaat la lu ñaaw loo xam ne mën naa am dencaloon na loo imaam Shaafi'i day wax lisaanuka laa tazkur bihi awrata mri'in fa kulluka awratin wa linnaasi alsunu nee na sa làmmiñ bu ci tudd ayib nit ndax nit léppam ayib la lépp sikk la te nit ñi am nañ ay làmmiñ nit ñi am nañ ay làmmiñ léeg-léeg am na ñuy nettali xorom benn góor boo xam ne dafa gis xale bi di cëpp cëppi mu ne ko na nga noppi nag te xam ne xam naa lépp xale bi moom ni ko man itam nettali nañ ma lépp xam nga lépp waxal samay sikk waaye man nettali nañ ma lépp paa topp ko naa ko lan lañ la nettali ndax xam na ne moom it def na ay sikk man la kabil muhazzabi borom durée di la wax fii kan gis lépp man la kabil muhazzabi amut moo tax yàlla tere ko daan ne wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum boo ayibalee nit ki ayibal nga sa bopp ayibal nga sa bopp mooy boo ko waxee mu delloo la ko waxoon ne gën a bon mooy koo xam ne dafay saaga yaayam ak papa ñu ne waa nit ki naka lay def loolu nit ki naka lay defe loolu mu daan ne nit nu muy saaga yaayam ak papaam mooy dafay jàkkaarloo nit saaga ko yaay ak papa nit koo ko delloo bu ko defee mooy moom moo saaga boppam moom la yàlla di wax wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi adwan bi xayri ilm bu leen saaga ñi nga xam ne wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbullah bu leen saaga ñi nga xam ne gëmuñ yàlla bu ko defee ñoom ñu delloo leen ko saaga seen léegi bu ko defee loolu mooy wala talmizu anfusakum loolu mooy violence façon violence waaye li muy bari bari ñett yooyu yëpp am na wax ne yar ak xam-xam buñ mënta ñàkk na yar bi des ca boobu yar ak xam-xam buñ mënta ñàkk ñu la doon tànnaloo tey nee na tànnal yar te bàyyi fee bàyyi fee xam-xam ñetteel bi ci nga xam ne ñooy waral fitna moom mooy yar bi amut école bi deful rëlam waaye bu ñu demee ba nit ki nekk jeune war a am responsabilité ñu war koo xamal yow yaay kan yow yaa war a développer dëkk bi yow yaa war a jël relève bi dañ koy jël teg ko fële tahmis mooy ndaw ñi bokk na ci liy indi violence mooy ndaw ñi duñ leen teel a responsabiliser ndaw ñi dañ leen di beddi completement lan moo tax chômage bi bari mooy ne foo dem mag ña dañuy jël mbir ma rek aki pook aki ne ndaw moom mooy développer réew yàlla sax subhanahu wa ci xadisu yenente bi nee na ndaw luy jaamu yàlla ndaw luy jaamu yàlla moo koy gën a bégloo ci mag loo xam ne day fay jaamu yàlla ndaw mooy kenn société mooy yenn société marxala boobu souvent réew yi nga xam ne sous-développé lañ comme ay Sénégal ak Afrique ñoom dañ koy sàggane marxalatu shabab te boo sàgganee marxalatu shabab mi ngi lay yóbbu ci ñàkk ak ñàkk développé ñàkk nag daanaka bokk na ci facteurs yi nga xam ne dafay indi li ñu tuddee violence ndaw yenente yëpp jamono ji ñu gën a dëgëre ci lañ leen di yónni yenente yëpp ci jamono ji ñu gën a dëgëre ci lañ leen di waaye sax yàlla subhanahu wa taala bu ñu demee yowmal xiyaam benn marxala rekk lay seppi benn marxala dafay laaj lan tazuula aw laa tazuulu qadama abdin yowma alqiyamati hatta yusal an arbai xisaal nee na doomu aadama bi du séqi tànkam lu dul ne dañ koo laaj ñeenti laaj mooy an umrihi fii ma afnaahu dundam ci lan la ko jeexal mooy dafa laaj doomu aadama bi ci dundam yépp globalisé ko mais pour wane ne sa dund dinaa la ko laaj waaye sa dund nag dafa am lu ci gën a am importance loolu dama koy génneel question boppam mooy wa an shababihi fi ma ablah pourtant bu ne wa an umrihi ci dundam mooy laaj na lépp lan moo des sa dund sa sabab ci la bokk waaye importance su sabab importance su jeune ak waxambaane moo tax yàlla jagleel ko génnee ko ci daal ne ko ñeenti question yi dama ko ci boole moom waa sa waxambaane yow ci lan nga ko passé loolu expression euh, alxuraan wala arab sax ci boppam saa bu tuddee mbir daa tey seppi loo xam ne ca biir la bokk xamal na mbir mooma lu rëy rëy loolu la ñuy tuddee ci balaaxa zikrul xaasi baada al am tanazzalu al war ruux malaaka yi dañuy wàcc waaye jibril ndax jibril du malaaka jibril malaaka la kay ci la bokk waaw yàlla bu waxee qul auzu bi rabbil falaq min charri ma xalaq ndax saar yu yemuloon foofu jeex na yàlla bu waxoon qul auzu bi rabbil falaq min charri ci ayu maa maa googu lépp dugg ci biir min charri ma xalaq lépp lu yàlla bind rek maa ngi musul ci aw ayam ndax saar wi waruñ ko woon a yamale foofu mu jeex saar wi jeexoon na foofu la saar wi yam waaye pour wone importance importance li may waaj a tuddaat après aw ay de mën nga cee musul yàlla waaye nag seppi ci ñetti ay yi nga génne leen te xam ne ñetti yi boo ci muccee daanaka yeneen yi garaawul noonu waaye bu noonu sa bu yemoon tamit sarri maa xalax rek saar foofu la yam waaye wa min sarri xaasiqin ku ne xam ne guddi ak la mu làmboo nga xam na ko kenn du ko wax kenn wa min sharri ku ne xam na njabar njabar googu sax bokk na ci facteurs yi nga xam ne mooy indi violence nga eh, xam ne ñooy indi violence sabab daf ci yoo xam ne dafa généraliser foo dem fekk ko foo dem rek loola dafay am waaye Sénégal ñoom dañoo particulier dafa am yenn facteurs yoo xam ne ñoom rek ñoo ko jagoo amul feneen njabar gii ni mu tasaaroo bokk na ci daanaka ni mel fii melu ko feneen te njabar bokk na ci yu bon yi nga xam ne dafay indi violence bokk na ci gën a bon sax moo tax yàlla seppi ko waaye añaan yàlla seppi ko ci moom itam tuddaale ko añaan moom kenn du ko wax nit ibnu taymiya euh, ibnu jaw ibnu qayyim al dafay faral di wax euh, bakkaar yëpp daanaka dafay am finition dafay dem benn benn instant di jeex ba mu des iñaan iñaan moom nee na amul finition amul fu kon ndaw ñi dañ leen a war a euh, boo seetee sax ci yeneen tey ci yeneen yi nga xam ne ñoo ci gën a nekk ñoo bi ñuy woote ay ndaw lañ woon ñoo gën a def effet Euh, nañ jël rek ku ñu tudde abul anbiya wala ñu tudde ko imaamul muwahidin ibrahima xalilullah bu fekkoon am na beneen expression bu gën a bu gën a fort prophète mooy Muhammad le jeune prophète ibrahima alayhi salaam dañuy jël ci moom exemple ci lu ñuy tuddee xusnul xiwaar wala mën nañ ko wax sax tolérance mën na fexe ba nit ki mu xëcc ko indi ko ci li mu nekk te bant du jóg dara du yëngu Ibrahima alayhi ci biir këram rekk ci papaam ak xale ni mu ñimee papaam waaye moom dina def ay pexeem ba wax li mu bëgg a wax papaam papaam daf koo waxam ne ko Ibrahima yàlla yi kat yow yaa koy jaay daa war a dem marché ba mënoon na faa nekk naan yàlla du ko téye xalaatuma ko sax naa nga maanaam ba doon suñ xale jamono ji loolu la ñuy wax non non defuma ko déedéet def na ko indi yàlla ji baay ji mooy nettoyé yàlla yi mooy defar nettoyé Ibrahima dem jëli ca marché ba bu demee ca marché ba daa di commencé comme jaaykat yi niñ koy defee yéen waa marché bi kan mooy jënd yàlla joo xam ne mënulaa jariñ mënulaa lor yàlla joo xam ne mënta sax jariñ boppam moom ci boppam ah nit ñi di ko romb naan ah yàlla joo xam ne xaaral ma romb man Ibrahima noonu lay nekkee ba ngoon du jaay dara mu ñibbiwaat ba mu ñibbee ca kër ga papa ji ne ko yow lii daal du solution léegi nañu weccoo léegi man yow yaay nettoyé yàlla yi waaye man maay dem jaay léegi Ibrahima nettoyé yàlla yi waaye bi muy nettoyé ba seen papa ji di ñëw di xool ndax mi ngi liggéeyam déet Ibrahima dafa fexe ba fël yàlla mu daanu. yàlla ji daanu papa ji daw ñëw looy def nii da ngay daaneel yàlla ji mu ne ko déet si bàyyi ko mu jóg bàyyil yàlla ji mu jóg papa ji boppam ekkiti lii nga naa ma lii ne ko waa papa loo xam ne mënta nag lu mënta ekkiti boppam ne mën naa jëriñ wala mën naa nekk yàlla dem ci ñi nga xam ne dañuy jaamu biddiw yi wala ñii dañuy jaamu weer wala dañuy jaamu jant bi bu ñëwee du wax ne eh biddiw kenn du ko jaamu dañuy jaamu borom biddiw bi déedéet si taxaw mbooloom yëpp taxaw guddi jot mu ne e eh, gaa yi ñëpp ñëw mu ne leen biddiw bële mooy sama yàlla biddiw bële gaa yi am ñu ko ci topp daal ne biddiw bële mooy sama yàlla waa bi ñu xëyee suba yeewu tëppar ñi bët yi sëlmu xool ci kaw ana sama sama biddiw sama yàlla ji anam gaa yi daal ne ah est-ce ah ñu daal yoru ko xaaral ma guddi jot mu gis weer wi daal ne aha man dama dama juum waaye kii laa waroon jël kii mooy sama yàlla weer wi haza rabbi bi mu xëyee suba gisul weer wi mu laaj gaa yi ana sama yàlla ji nekkoon fii ku ko yóbbu ñu ne xamuñ ko de mu ne ah am daal naa ko bàyyi bi ñu xëyee suba mu ne man daal ponkal mii kii moo gën a rëy sax jant bi gis jant bi daal ne jant bii nag mooy sama yàlla bi ngoon jotee guddi jot mu ñëw di laaj gaa yi sama yàlla ji nekkoon fii laay seet laay wër anam ñu ne ko mu ne gaa yi est ce que duñ lijjanti kan moo fi jële lii suñu yàlla yi ñu doon wax jant beeg weer yi est ce boo ko fi jële kan fi jële kan mooy bi ba ci àgg mu yóbbuwaat ko ci àgg mu yóbbuwaat ko yi da nga dëgg ñu lijjanti kooku ki feeñal biddiw yooyu la sakka moom moo defar bidiw si ah boroom xar mi normalement moom mooy génn xar mi yeew ko ci ñax mi léeg-léeg dugalaat ci biir ne waaw kooku la kay waa ki bind lu rëy lii ki bind bee ki moom weer mi moom bidiw bi est-ce que moomul si ah ñu commencé di ñëw ndànk ndànk moo tax al istiqra ci philosophe yente yàlla ibrahima moo ko fi dàq te dàq mooy di ñëw yow ci étape di ñëw ak yow ci étape ba nga ñëw ci dëgg ki te doo ko yëg ba nga gis dëgg te doo ko yëg moo tax bi mu teseeg euh, Namrus loolu la ko wax yàlla mooy rey mooy dundal ah boobu dafa teeraa teer ba mu ëpp Namrus ne ko rey ak dundal kay garaawut woo kenn rey woo kenn bàyyi nu ko ah kum loolu léegi damaa gis jant bi di jóge fii di ñëw fii suñu sama borom moo jële jant bi fii moo ko indi fii léegi damaa bëgg comme jëlee na ko fii yóbbu ko saw damaa bëgg yow nga yóbbu jëleel ma ko saw yóbbul ma ko penk ah loolu nag moom mooy te Namruus moo tax Ibrahim ku mu mës a defal xiwaar lan moo tax jeune la woon deretu ndaw moo doon daw ci yaramam moo tax ñu tudde ko imaamul muwahidi moom Ibrahim alayhi salaam ndaw buñ ko favoriser jox ko liñ ko war a jox normalement violence du am waaye buñ ko favoriser wul mu toog am am faraax eh, asbaab bi dañoo dugalante ndaw gi nga xam ne joxoo ko rolam ci li muy mujje mooy nekk ci chômage du am liggéey ku amul liggéey mooy dangay ngay féex am jot moo tax bu ñu organiser làmb mu fees dell bu ñu tëggee làmb ji ba pare képp koo xam ne nekk na ci yoon wi man ci yoon wi laa nekkoon bi ma nekkee dakaar stade Demba Diop lañ doon bëree waaye buñ fa bëree ñi ngi may romb man maa ngi ci bur ba bi waaye ñu ñu doon toog foofu ñëpp kenn du génn lal sa sa jaayukaay wala nga toog foofa di waxtaan da ngay dem dugg ci biir ci biir kër yi rek ba gaa romb lu ñu romb dañ koy yóbbu te loolu li ko waral mooy dañoo jël ndaw jox ko temps boo xam ne waru koo am deful dara ñett moo tase ci moom mooy joxuñ ko rëram benn buñ ko joxul rëram chômage dafay am bu amee mooy dafay féex day am temps beneen bi mooy dafay ñàkk du am dara te ku ñàkk amul dara souvent te jàngoo mooy sa solution mooy nga dem wéeru ji ci violence nit ki bu jàngul du xalaat pour génn ci ñàkk gi mu nekk waaye ñàkk gi mu nekk dafay daf ciy bëgg génnee ci jëf moo tax te saa jëfee rek musiba daal di am kon euh, boobu moo ci ëpp sol beneen bi dafa dugglante mooy ñeenteel bi ci ñeenti sabab bi mooy chômage ñàkk xëy ñàkk xëy saa bu amee ci dëkk mën naa jur violence maa ngi déglu ci jamonoy projet imam ndaw biñ koy àtte tribunal maa ngi déglu benn jeune muy wax ne ñu koy bi bilee de leen ñuy wax ci tribunal bi mu ne moom kat dafa nekkoon wakaam da doon dem ci benn horloger ñuy defaree ay montre yooyu di liggéey waaye day liggéey ba ngoon daanaka du am dara xam nga surtout jamono joo xam ne defar montre yooyu xaw naa xeewe tuuti du am dara léegi nee na benn xaritam mu taseeg moom ci jàkka ji waaw ah, gis na ne moom ku bëgg diine mu tasanteeg ci jàkka ji mu ne ko jàmbat ko daal dëkk bi ni mettee amul xëy liggéey amut mu ne ko kaay ma tegtal la foo xam ne boo fa demee mën nga faa am benn coup da am benn kuu rek nga ñëwaat mën nga am nga gagné cinq millions wala trois millions wala dix nga daal di ñibbisiwaat Sénégal nga investir mu ne ko fan mu yebal ko mu ne ko Kidali ngay dem mooy fële ca Mali boo demee da ngay dem nga wax leen ne dafa bëgg a liggéey ak ñoom ñoom liñ gëm lañ gëm léegi ñu jël la léeg-léeg ñoom dañuy dem daa di barricade daa di daa di toj benn banque wala benn borom xaalis ñu yëg na dal na ci benn hôtel ñu ñëw euh, dal ci hôtel bi fexe ba jël kooka laaj ko xaalis léegi xaalis booba ñu cee amee nag bu ñu ñëwee dañ koy séddoo buñ ko séddoo yow boo ci amee benn coup da ngay gaaw rëcc nga ñibbisiwaat nee na mu nekk foofu Mali ci nooru Mali bi ñu ko doon gardeloo ay tubaab xaw ma ay norvégien la norvégien la waxoon xaw ma ñan la ci waaye ay tubaab la doon garde na mu toog lu yàgg waaye nee na daal benn kii amut gars tojuñ banque defuñ dara xaalis amagul daal affaire bi bëgg a yàgg moom xam na ne xaw naa tiit tuuti muy jéem a rëccu ñu jàpp léegi kenn ci ñoom koo xam ne xam na ne kat kii bëggatul affaire yi daa bëgg a ñibbi moo ne ko ndax na ngaa bëgg a ñibbi bëggatoo affaire bi mu ne ko waaw mu ne ko kaay ma dimbali la nga rëcc mu dimbali ko boole kook ay ñoo xam ne ay terroristes yoo xam ne dañoo jege woon foofu di dem Burkina Faso ba demee Burkina Faso ñu dem attentat am fa ci benn bus nee na gendarme yi wala policiers yi bi ñuy ramasse foofu ñu jàppale ko ci bi ñu ko jàppee gis ne carte d'identité Sénégal la yor ñu indi ko Sénégal tëj maanaam kooku xoolal fa mu dem ak risque bi mu jël ak kooku man xam nga comme comme doon nañ ko garder loolu muy garder bu ñu ko joxoon benn kees wala bomb sax jox ko di millions ne ko demal yóbbul ma ko ci jàkk sàngam wala pale sàngam nga explose ko doo ko fay explose lan moo ko waral somage moo ko waral ñàkk liggéey ñàkk xëy googu moom mooy tax sax saa bu ay caaxaan amee day fees dell caaxaan yooyu waaye caaxaan yooyu bu pare violence ba day day bëri te nit ñi mën nañoo def li ñuy def ci yeneen réew yi comme ni ñu koy def def ni ñuy def def seeni caaxaan tubaab yi ñu ëpp caaxaan fuuf waaye buñ ci paree ku nekk day ñibbi mu jeex dara du am waaye ñun ku bëgg a fësal sax saw naqar na nga xam ne boo ko fësalee am na ku toog ci sa wet bëgg cee profitoo gaaw parce que amul liggéey boo fësalee saw naqar mu profitoo ci gaaw daal di dem dajji au champ jël ay saaku ceebam wala mu jël nangam parce que dafa xiif kon loolu facteur bu mag la ci mooy ñàkk xëy mi waaye bi nga xam ne ñépp ko bokk sax mooy mooy juróomeelu sabab bi mooy aljahlu réer réer de comme ni ma leen ko waxoon léegi rek ku réer moom ay solution moom du nekk lu baax daanaka du du aju xel doy na ci exemple rek ñaari société yi société al mujtamaul makki société makka ak madina exemple ñoom ñaar ñëpp ku nekk dund na ci ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam période ku nekk dund na ak yenente bi benn temps waaye violence bi fan la ëppee woon te pourtant màkka benn yeneen yenente bi màkka benn opposant rek la amoon benn opposant benn opposant amoon muy kufaaru Quraysh te violence bi foofu la ëppee bi mu demee Madina nag ay opposants yu bëri la fa amoon ba mu àggee fekk na fa ñu ñuy tuddee al fekk na fa ñu ñuy tuddee al fekk na fa ñu ñuy tuddee al nasara beneen société dolli ko waat beneen opposant ñëwaat mooy al munafiqun ñeenti ñeenti opposant la waaye opposant yooyu ñuy bëri bëri bëri bëri ñoom dañoo jàngoon moo tax yenente bi amuloon problème foofu dañuy discuter moom dañuy waxtaan ak moom léeg-léeg mu ñëw léeg-léeg mu ne Euh, yahud yi ñëw daan ne wax benn group rek nañ dem ci yenente bi ñu gëm bu ñu gëmee ba ngoon rek ñu ne ah gisuñ lu ñu xam génnaat wakfuru axirahu nañ gën ci bëcc nañ gëm ci bëccëg gi rek bu ngoonee ñu daal di weddiwaat kooku xam nga kon mi ngi defi pexe parce que dafay xalaat waa Màkka sax bi ñu demee ba bëgg jaaxal kii ci yenente bi dañoo yónnee ca yahudiya ne dañoo bëgg ngeen dajaleen ñu ñetti question yu safa saf ñu laaj ko yenente bi yenente bi bi mu nekkee màkka comme mujtama boo xam ne ay jaahiliya moo fa siiw ñoom seen solution mooy doole rek ak dóor rek bilaal gëmal gëmoo ñu jël aw xeer ki sew kii dóor duñu amuñ ci pexe amuñ yeneen pexe Ammar gëmal wala Sumayya weddil Muhammad nga bañ ñu rey demoon na sax surtout avant islam bi ñëw xoolal nga am doom bu jigéen wa izal mawudatu suilat bi ay zanbin qutilat mujtamaul makki avant l'islam moo tax lislaam fa mu war a wàcc la wàcc maanaam fa mu wàcc foofa la waroon wàcc la pa bawol bi doon wax naan bawal gii bu fi sëñ bi ñëwuloon billaay sëñ bi fi mu ñëw la war a ñëw maanaam gis na magu yeeg trian yeeg naka sudul noonu gi daal gaa yi sonal ko ci lool mu xam jaaxle ci bawal daal ne bawol daal xam naa bu fi sëñ bi ñëwul woon moom du baax ba ci yàgg mu ne bawal daal ndekete sëñ bi fii bawal gii mu ñëw foofu la war a ñëw waaye yenente bi màkk gi mu wàcc fa la war a fa war a wàcc seetlul rek yow bu ñu la ñëwee déy la fekk la ci mbooloo mi ñu déy la ne la sa soxna day am na doom nga ne doom bu lan la nga ne doom bu jigéen yow amatoo solution ñaari solution rek nga am wa ida bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazib suñu waxee nit ki ne ko am nga doom bu jigéen rek dafay ñëggal kanam ci mer benn solution rek lay am ñaari solution lay am ayumsikuhu ala hunin ndax dama koy jël rek tawayadi jël ko nekk ku tekkiwul dara am yeddo suufu fi turaab wala dama koy jël gaspar pax ba bu ko dugal ci biir amul beneen wala mujtama al moo tax réer loolu lay def ci nit lépp violence am yenente bi bi mu nekkee madinatul munawar sax ñoom dañ doon jege màkka di ko fa fekki di indi fitna ci moom gasootu ba def indi fitna yenente bi mësul songu yéefar yi mësu leen attaqué xeex yenente bi daal riposte rek la doon def usina lillazina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa qaatilu allazina yuqaatiluunakum yàlla loolu la wax bu leen xeex leen deful dara waaye ku ñëw bëgg a xeex ak yéen nag bu ko bu leen bàyyeeku beneen bi mooy ñàkk mooy juróom-benneel ci sabab ñàkk moom fu mu am mën naa jur violence surtout bu àndeek réer nag mën naa ànd ak xam-xam sax du am ñu ngi nettali ñu ne ci maarakatul xudaybiya yenente bi sallallahu alayhi wa bi mu signé accord ak yéefari ay accord yoo xam ne lépp ay tooñ tooñ rek weesuwul yéefar yi dañoo wax yenente bi ne ko képp koo xam ne tuub na jóge màkka ñëw madina nang ñu ko delloo waat ndax nit kat waa màkka seen cosaan mooy yéefar kon na dellu waaye képp koo xam ne nekk na ci jullit ba mu neex ko mu ne nekkatuma jullit damaa murtat ñëw màkka ñun duñ la ko delloosi parce que dafa dellu ci la mu nekkoon rek yenente bi ne d'accord na loolu tooñ wax nañ lu mat fukki accord waaye yeneen bi accord bi ko ci yitteeloon rek mooy lu ñuy tuddee liberté d'expression xurriyatu taabir man de benn accord rek laay set est-ce que dinañ ma may léegi man dëkk bu ma neex dugg waxtaan ak ñoom kenn du waxati bul duggati ci dëkk bi bul waxatee kii bul duggati fii ñëpp libre liberté la liberté gars yi bindaale accord waaye luñ bëgg a wax ci foofu violence mooy dañoo toog ba ci yàgg am ku jóge tuub jóge màkk ñëw Madina bi mu ñëwee ci yenente bi yenente bi ne ko ah man damaa seq ak samay moroom damaa seq ak ñoom de te gor laa du ma xëtt sart delluwaatal màkk léegi léegi yàlla jeexal ko delluwaatal rek saxaaba yépp nag merci saxaaba yi maanaam ma Xudaybiya ni ñu meree woon yenente bi kenn mësu koo xam ba yenente bi sax wax ne léegi kay na ngeen ñibbi comme am ngeen am ngeen aj am ngeen umra watu leen ngeen ñibbi kenn faalewu ko yenente bi génnaat waxaat leen ko kenn kenn kenn xoromalu ko sax yenente bi jaaxle na dugg ci biir néeg bi daan ne yaa umu salama umu salama ci soxna yeneen bi moo fay symboliser lu ñuy tuddee tolérance ak alxiwaar soxna yenente bi ci wàllu science xam-xam sayyidatna Aïsa moom mooy symboliser xam-xam waaye ci wàllu waxtaan ak wàllu tolérance sayyidatuna ummu salama moom moo moo ko doon symboliser ci kër yenente bi lépp fa amoon ci këram yépp amoon nañ bi mu duggee ne ko ah man de sama nit ñi ñu ngi may bëgg a jaaxal ñoom Aboubacar ñoom Omar ñoo xam ne léegi nii rek dama doon tufli tufli du laal suuf dañ koy capté léegi nii rek bu ma doon jàpp jàpp bi du laal suuf dañ koy capté ñoom laa ne watu leen kenn faale lan moo xew Moussa la ma ne ko ñii da leen di comprendre dañoo mer ku mer nag moomul boppam daanaka seytaane mooy ànd ak moom tolérance waxtaan léegi daal xoolal kaay ma wat la léegi da ngay watu rek nga génn dem nga dox dem bul wax kenn dara bul waxaat ndax wax ji bu bëree sax yabele man na ci yeneente bi daal di watu génn dox dem saxaaba yépp ku nekk xëcc sa morom wat sa morom ñu dox dem sayyidatuna Umu Salama waaye li ñu soxla foofu ci Xudaybiya waa ji demoon ñëw tuub saxaaba yi merci ci lool yenente bi dana ko génnal Madina mu génn dem ca yoon wa fi nga xam ne fi la njëggu waa Màkka bi buñ jógee Saam jëm Màkka fa la ñuy jaar mu dem samp fa benn xaymaam dëkk fa beneen waay tuubaat jóge Màkka ñëwaat yenente bi wax ko lam ko waxoon saxaaba yenn saxaaba yi ne ko sa moroom bi fi ñëwoon de ma nga bërëb sàngam mu dem fa mu keneen tuubaat ñu koy def noonu ba mu nekk ab group ñu mujj nekk fay agresseur amuñ lu ñu lekk te ñi maw ñoo dem màkka bu ñu dem may madina yeneen tamit ne leen dellu siwaat leen ñuy def léegi il ñu am lu ñu lekk ñàkk ñàkk moom moom duñ toog noonu di xiif di dee Abu bu jógee saam bëgg romb ci yoon ñu kar ko nangu lépp léegi ñu dem ba ci yàgg xiif bi commencé menacé màkk ci boppam xiif commencé ko menacé ndax njëgg ñëwatut lu ñëw foofu ñu arrêté la waa Màkka ci boppam ñoo bindi lettre yeneen bi ne ko dañoo bëgg nga dimbali ñu ngir yàlla charte bi charte boobu nga xam ne moo gënoon nekk tooñ nga dindi charte bi ñu dindi charte booba gaa yi daal di jógewaat ca bërëb ba ñëw Madinatul Munawwar kon ñàkk léeg-léeg sax nit ki am xam-xam wala léeg-léeg sax nit ki ragal yàlla wala léeg sax nit ki kii ñàkk dugal ko ci mu dem ci violence waaye bokk na ci liy indi violence donte ñun dundaguñ ko mën naa am léeg-léeg ñu koy dund violence verbale ñu koy dund mooy alfahmul xaati li mooy nit ki ni mu dégge diine ji baaxut ni mu dégge diine ji baaxut waaw day indi violence euh, bokk na ci rek exemple Seydina amar mën naa am xamul woon alxuraan yépp xamu ko woon yeneen bi jàngal ko benn façon jàngin kese mu jàpp ne loolu rekk am loolu aka bari bëri léegi nga jàpp ne lii rek am jàpp ne cinq plus cinq dix loolu kese moo war a am amul cinq plus cinq fois deux amut onze moins amul neuf plus un amul huit plus deux amul lu nga jàpp lool bi waajur ji di jàng ci jàkka ji Omar mi ngi nettali naan waa ji li muy jàng ci alxuraan dama naroon a tëb song ko waaye ma téye sama ma ma ma ma ma ma maîtriser sama bopp rek waaye ba mu paree rek laa ko songu poñe ko violence song ko yóbbu ko ca yeneen bi bu ko yóbboo ci yenente bi ne ko kii moom dañoo war a sàkk ci moom pexe ndax lam doon jàng fee du alquran leneen la doon jàng mu ne yenente bi jàng mu ne waa ji jàngal Hisham Hisham jàng yenente bi ne ko ah, hakaza nii la ma ko Jibril jàngale mu ne Omar jàngal li ngay wax yow Omar jàng mu ko nii la ma ko Jibril jàngale mooy ñaar yëpp am na mooy kee dafa dégg diine ji wala dafa dégg sax xam ci dégg njàngin mi noo xam ne fahmu xaati la mooy ne jàpp ne benn jàngin kese moo am te yu am na loolu exemple rek la waaye buñ ko doon xool ci diine ji kenn xamul nu mu tool ñaari boroom xam-xam mën nañoo wut comme imam Shafii li mu doon wax man kat li ma jàpp mooy ni wér waaye li keneen jàpp wérut waaye li ma jàpp te jàpp ne wér na mën naa am du dëgg li keneen jàpp te tama jàpp ne wérut mën naa am loola mooy dëgg ñooñ noonu lañ doon dunde ndax ku ci nekk soo soriwul ci diine ji xamoo ne imam malik dafa am lu ñuy tudde saddu zaraa mën ngaa toj kaasi mën ngaa mere nit mën ngaa wax nit verbal mën ngaa wax nit loo xam ne waroo koo wax imam malik ci saddu zaraa buñ ko nee diggante fii ak sëf mbaam am na teen bu fi nekk bu génnee dëkk bi rek day teg ñag bi daal fii ak sëf mbaam bu fi kenn jaar waaye bu dee imaam yi wala Abu Hanifa surtout moom day làmbutu di làmbutu yorob teer torsam di niit ba àgg ca teen ba mu daal di wër teen bi teg ci ak ñagam daan ne kum neex mën ngaa def sëf mbaam waaye boo ëssee ba bërëb sàmbam sàngam bu fa jaar waaye boo xamul loolu bu fekkee xamoo loolu xamoo usulul fiq xamoo balaaxa xamoo dara jekki-jekki nit def dara rek nga gaaw moo tax Seydil Hadji Malick day wax ne man lam yuxit bi jumlati saria ku péegul saria yépp inkaaruhu li mahlakin zaria ak weddem ci alkande rek la koy la koy yóbbu loolu nag daanaka moo ëpp ñun ñoo ngi ciy dund rek violation verbale lañ ciy dund ndax léeg-léeg nit wax nit loo xam ne lu ñaaw loo xam ne li ko rek mooy na mu déggee diine ja la ko war te dégg na mu xame la ko war ta xame benn waaye nee na ma damaa dem ci jàkka di waxtaan te ña may waxtaanal ñoom ñëpp li ma nekk ñoo ma ci dugal maa leen ci dugal waaye mën naa am moom dem na ba xelam dellusi si wala dem na ba am njàngam sori mu ñëw di waxtaan ci ci biñ ñee suba la gàmm muy waxtaan ci jikkoy yenente bi sallallahu alayhi wa ah violemment xale yi jóg songu ko wax ko wax ju ñaaw ne ko dangaa jeng lan moo tax bi nga ñëwee tey defoo conférence bi ci bidaayatil mawlud wa sunniyati lan moo tax defoo ndax gàmm bi la wala sunna la loolu nga waroon def gàmmu ci te nit ku jàng te dëgg dëgg dëgg ndax gàmmu bidaa la wala sunna la ak waxtaane jikko yenente bi loolu kan moo leen di comparé ñoom ñaar kan moo leen di comparé xanaa ku réer li di wax xanaa wa man yargab an millati ibrahima illa man safiha nafsi xanaa ku dof bu ko defee euh, yooyu mooy yi nga xam ne moo sabab violence bi ci àdduna bi yépp nag waaye Sénégal ñoom dañ cee am bu particularité muy làmb làmb bokk na ci li indi violence fii ci Sénégal bañ na ko ba sax expression yi ñuy utiliser wax yi ñuy wax sax waxi violence la ñuy ñaari mbër bu ñu jàkkaarloo ñoom ñaar war a waxtaan wax ja wax ju ñagas lay nekk foofa la violence ba di njëkk a tàmbale bu ñu paree ñi ñuy àndal ñëpp bu ñu génnee la mbër ma di wax walla la muy jëf bu ñu génnee ci biti loolu la ñuy jëf ndax kat jàngat yi nee nañ boroom xam yi nee nañ li ëpp ci violence li nit ñi ëpp ñuy def violence violence ba ñuy def dañ koo mës a seetaan dañ koo mës a gis maanaam ñi ëpp ci ñuy def violence lañu def ci violence dafa fekk ñu gis ko moo tax suñu média yi ñu war a def état attention lañ ci lool bokk nañ ñoom itam ci sabab yi heure bi moom moo moo jeex waaye bëggoon naa cee xus ndaxta dëkk bi dañoo toll jamono joo xam ne al i'laam al haadif aw al haadifa moom moo ñu manqué mooy presse boo xam ne bu objectif année bii passé année bii passé bi ci topp ñu ma fekk Dakar ak ki nga xam ne moom lañ gën a déglu ci Sénégal ñu gën a déglu ci média bi mooy du Mamadou Mansour jóg moom lañ jox ne yow yaay meilleur journaliste boo xam ne yaa ëpp lu ñu lay déglu lan moo ko may émission tes dañuy créer émission yi nga xam ne dañ koy créer pour nit ki ñëw fa di wax lu bon wala di wax fa loo xam ne dañ ko waroon a nëbb loo xam ne yaa ngi ko séq ak sa papa wala sa yaay wala sa mag wala sa rak ca kër ga ñu ne la ñëwal fii ci penc mi nga weer ko fi émission yooyu ñoo gën a dox ci Sénégal émission ma xalaas ah daanaka rajo bu ko amul sax daanaka kenn du la dégg ñëpp moom la ñuy déglu nit ñi dañoo dem ba tàmm te nag nit ñi ñoo leen ci orienté ndax bu ñu xoolee dix ans ci kanam wala lu ko ëpp émission yooyu amagu fi woon. te nit ñi ñu ngi doon déglu rajo yi di seetaan télé ndax benn waay boo xam ne moo jiite Even Pro Even Pro dafa génne benn téléfilm téléfilm bi dafa am ay ay valeur rek lay jàngale mais nee na bi mu génnee téléfilm bi dafa gis ne yeneen yi euh, yeneen yeneen yeneen euh, kii production yi ñoom ñoo ko ëppale ay vie moom daal seenam bi théâtre bi kenn kenn duyu ko ba léegi mu daal di génne beneen beneen boo xam ne affaire yu yàqute rek lu yàq société bi rek moo ca nekk nee na bi ma ko génnee nee na benn benn fan ma am ci xaw ma un million wara lu ko teg ci ay vues mu ne kon moom buy def buy produire moom day produire ci loo xam ne day yàq jikko yi lu bon ci lay produire ndax loolu moo koy may xaalis waaye moom xamul ne avant muy produire loolu nit ñi ñu ngi doon seetaan télé keneen ku bon ki mu jàpp ne moom moom moo doon produir lu bon ba nit ñi daw jëm ca moom kooku it avant mooy fii ñëw nit ñi ñu ngi doon seetaan télé ñu ngi doon seetaan rajo yi mooy ne ñun dañoo orienté wul suñu suñu jeunesse dañoo orienté wul suñu peuple ci jikko yu baax benn jàngat fii ak cinquante ans ci kanam wala fii ak cent ans Chine moom mooy jiite àdduna bi ñu ne ko loolu foo ko teg fu muy jaar ba raw États-Unis États-Unis nga xam ne léegi yeneen mesure lañ jël ci seen bopp duggani duggatuñ duggatuñ ci benn xeex ñoom kese soit buñ bëggee dugg ci xeex dinañ fexe ba àdduna bi yëpp ànd ceeg ñoom buñ dee perte ñëpp perte ndox kooku moom mun Chine mënu ko raw mu ne fi ma ko teg mooy dama gis Chine ñoom dañoo orienté seen jeunesse dañ leen a orienté booy seetaan damaa xool TikTok yi maa dugg yoo xam ne comme France ñoom ci wàllu ay théâtre ay ay ay ay confidentialité ci yooyu la ñuy dugg boo demee États-Unis ci affaire film affaire sport yooyu rek la ñuy dugg waaye bi ma xoolee TikTok yi nga xam ne moom la chinois yi di posté yooyu seen xale yu ndaw yi ñoom ñëpp ñu ngi koy defe ci nit kii naka lay def ba defar ordinateur naka la ñuy def ba defar bomb nu ñuy defar science rek lañu ki ma xam ne xale yii ñoom bu ñu màggee ñoom ñoo jiite àdduna bi loolu amul werante daaw ak daawaati jéeg gis nañ ne équipe nationale walla avant ñu jël coupe d'Afrique bi yooyu topp ñuy gis ne équipe nationale kii i i yi ak dix-sept yi ñëpp ñoom ñoom ñëpp dañoo dem final am nañu ci ñàkk am ñu jël coupe ñu ne borom jàng di ne équipe bii bu ñu yéegee ci kaw amul werante ne ñi mën nañoo jël coupe bi te am maanaam sa jeunesse ndaw yi la ñuy jàng ak nañuy mel wax ma sa population nañ lañ mel fan lañ war a àgg ci développement wax ma sa jeunesse wax ma sa jeunesse nan mel ma wax la fan nga war a àgg ci développement loolu moom moo nekkoon jeex na moo nekkoon sababi jotuñoo dugg sax Ah, jotuñoo dugg sax ci xulul yi nga xam ne buñ ci jaaree yi nga xam ne buñ ci jaaree mën nañoo mucc ci violence ah mag ñi ñaanaloon nañu kat Sénégal mag ñi ñaanal nañu gaa waaye nag daa fekk ne population Sénégal am nañu mel ba pare population boobu noonu boo xam ne diine dafee teel a dugg am lu mu fi def liggéey fi liggéey bu moom moo tax léeg-léeg ñuy dem ba ci violence ala safa jurufin ñuy dem bay ba nga xam ne tàbbi nañ ca kàmb ga saa bu demee bay tàgg ci kàmb gi rek valeur yooyu jikko yooyu ak diine jooju xëccaat ñu ñu areeraat dem nañ ñett ñaari at yi mille vingt et ak léegi dem nañ fi ba ca ala safa jurufin xeeri dem nañ ba ca capu kàmb bay waaj dugg ci kàmb gi suñ jikko yi xëccaat loolu ñuy xëccaat nag euh, buñ ko faram-fàcce woon moom moo nekk solution yi ñoo ngi euh, jégglu bu baax a baax ci gàttañ lu ci lépp loo xam ne dëng na ci rek dañuy xam ne seytaane waaye lu ci jubit tam dañuy xam ne tawfiix ak borom bi la tawfiix borom bi moom moo koy joxe moo tax benn yoon rek la ko tudd ci alxuraan benn yoon kese nekkul ne tawfiix dafa ñàkk solo de waaye taw tawfiq ci woppam moo jafe moo tax alxuraan tudd ko benn wa maa tawfiq illa billah yàlla nañu ko yàlla defal yàlla na yàlla sëmbërtal ay xéewalam ci bërëb bii ak bërëb yépp bu ko defee ñu daal di sant ñëpp gërëb ñëpp rek yamale foofu suñu kàddu tey jéggulu bu baax a baax di ñaanal eh, sëy maxtaar naa loo yàlla bàyyi ko fi yàggal ko fi lool yokk wér-gu-yaram bu baax a baax ak sëñ Fàllu ak ñi koy jàppale ñëpp in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa al oustaz Thierno Kairé ci tënk bi nga xamante ne si moom la tënk waxtaan wi mooy al unfu euh, fi l mujtamaai sénégal yi asbaabuha wa xuluuluha léegi waxtaan wi yaakaar naa ne ñu ko doon toppaat pour bëgg cee jaar point par point di ko fàttali nit ñi yaakaar naa du fi xaj waaye bu wax ay point yoo xamante ne si yu ama am solo la yoo xamante ne si benn bu ci nekk suñ ci doon delluwaat mën naa jël temps bu bari waaye ñuy dellusiwaat ci ndaw ndaw ñi ni nga xamante si noonu lañ leen doye dale wala desele gannaaw ci suñu société bii ñu nekk muy Sénégal te ndaw mooy avenir ëllëg mooy yaakaaru ëllëg waaye ndaw itam comme ni mu ko waxee ci xadis bi ne lan tazula qadama abdin yowma alqiyaama xatta yusala an arbai xisaalin an umrihi fi ma afnaahu wa an shabaabihi fi ma ablaahu nga xam ne dafa tudd shabaab dafa tudd umr te umr ak shabaab mu ngi ci biir waaye mu settee ko ci ngir daraja boo xamante ne si moom la am ndaw ñi nag fii dañuy jaaxle ndax léeg-léeg dañ naan la yow magum jëmm nga nga ne waaw magum jëmm laa kon naa jël samay mesure ñu la da ngaa judd ba yow nga judd barki démb bu ndaw nga xam ne yow day mujj da ngay jaaxle da nga man lan la man mag laa wala ndaw laa dèjà bu ma bëggee utiliser dañ naan magum jëmm nga waaye suñ paree ci man dañ naan ma xale bu ndaw nga ma na ci diggante boobu bu ñu xoolee suñu société ni mu bindoo dafa mel ne ndaw ñu may nañ leen ñu tàccu may nañ leen ñu taasu may nañ leen ñu fecc may nañ leen may leen nañ ba may leen loo xamante ne si charia sax mayu leen ko waaye liñ leen mayut mooy taxaw wéetal yàlla bàkk suñ boroom tabaraka wa taala dellu ci te bañ koo bokkaale kenn loolu mu mayu leen ko saa su amee ñëpp ñi nga xamante ne si ñooy noonu ndaw ñi di noonu suñ borom tabaraka wa taala ñëpp daal di daal di jóg daal di taxaw te ndaw ñooñu lislaam bi muy taxaw démb ñoom ñoo ko taxawal gis nañ euh, drapeau bi nga xamante ne si moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon Usaamatu ibnu Zayd ay mag a taxawoon daal di koy contre waaye ba mu demee lan moo tax mu am ngañaay lu rëy loolu nga xamante ne si moom la sayid sayiduna Usaama am ndax dañ ne Usaama li taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn ko baayam dafa amante woon ak nit ñooñu aw dig te gis na ne defante ak fayu ndaw a ko man ndax kuy jël revanche danga prépare sa bopp surtout buñ ne laa kii moom kat moo duma woon sa baay wala duma woon na sa maam ci nangam ak yu ñu jàppante kooku bis boo waree jaamaarloo moom danga ko préparer ba noo mënti def bu la yàlla dimbalee tuuti rek danga nga am ndam ndax loo xam loo man da nga ko taxawe ngir defet bi bañ a répété kon ndaw ñi war nañ leen gën a jàppale war a leen a gën a gunge ci lu leen jëmale kanam jëmale askan wi kanam waaye pas di leen tegal ay programme yoo xamante ne si ak ay ndëgg sërëx yoo xamante ne si toujours dañ leen di nelawal làmb ji ngay gis ni yépp ci façon yooyu la bokk concentré wu leen ci ndaw yi nekk ci ba paas ci seen temps yépp te duñ ci jariñu ci dara kon euh, mbokk yi loolu rek moom lañ ci tënkoon ci lu gàtt koo xamante ne si da nga am question boo xamante ne si euh, kii day laaj mu ne euh, alustas kii day laaj nee na di seetaan yenn film yi nga xamante ne si day am ay xeex nga xam ne day am violence nee film yooyu ñu koy seetaan léeg sax dañuy wax ne liñ ciy jublu mooy dañ ciy jël expérience boo xamante ne si dañ ciy jànge waaye ànd ak loolu lépp film yooyu ñuy seetaan ban jeexintal la mën a def ci société bi wala ban jeexintal la mën a def ci nit ki. Euh, film yooyu jeexital bi muy def ci nit mooy ne nit dafa bëgg toppandoo daanaka àdduna bi liñ ci créé lépp nit dafa am fu mu ko gis rek toppandoo mooy ne dina def jeexital ci yow. yow mi koy seetaan sax nga ne dañ cee bëgg a jëlee expérience expérience boobu mooy ne yow dafa am loo gis ci biir film bi bëgg a jël loolu dugal ko ci sa bopp rek loolu ko ci jublu mooy ne bu dee film bi nag film violence la mooy ne doo jël doo jël loolu kese li nga soxloon kese doo ko jël allahumma lu dul nga nekk koo xam ne ku mën a ràññee ku mën a ràññee moom ku mën a ràññee ku xam moom moo tane tane na sax waaye ku ràññeewul surtout xale wërte seetaan yooyu ndax filmu yooyu nga xam ne dafay am violence liñ ci gën a fësal mooy liñ ci gën a ràññee mooy la fay symboliser violence moo ciy gën a fës daanaka daanaka la fay yare wala lay joxe xam-xam lu néew lay nekk léeg-léeg nit ki seetaan film ba mu jeex sax te du ko sedd léeg-léeg seet nit ki seetaan film ba mu jeex te du seetlu ne film bi mi ngi jàngale kon loolu euh, li muy def jeexital bi muy def ci nit mooy mooy baaxut ci wàllu violence mooy ne bu fekkee nit koo xam ne dafa jéng jëm ci violence la mooy laa chaque dina am lu mu jël ci moom moo tax xale sax ñuy jël duñ jël bokk na ci euh, éducateurs yi li ñuy yare xale ci kër duñ jël image u nit carrément jox ko xale waaye dañuy jël image mikke mu nekk ay xayawaan wala mu nekk ay nàngam nga xam ne lenn rek la ci xalaat mooy fo fo rek la ci xalaat du ci xalaat leneen ah kon seetaan film yi nga xam ne dafay am ay violence donte dañ ci jàng mooy la chaque mooy dina def jeexital ci loolu amul dante xanaa kay nit ki ràññee ak nit ki ñàkk ràññee yaakaar naa loolu doy na ci kii bi kii day laaj nee na dafa bëggoon ñu indil ko rek ci xulul yi donte benn wala ñaar ak ban jeexintal la euh, mu tudd violence boobu ban jeexintal la mën a def ci société bi la lay bàyyi ci société bi beneen laaj bi muy ñaareel bi ñetteel bi nee na li ñuy wax taekwondo nga xam ne nga xam ne xale yi ñu ngi koy jàng ak karaté mu ne moom it ban ban jeexintal la mën a def ci xale yi koy jàng ak ban jeexintal lay bàyyi ci ci société bi waaw euh, karaate ak taekwondo xam nga dafa am yoo xam ne paaka ñaari boor moo tax solution yi bokk na ci solution yi mooy jàngal nit ñi jàngal nit ñi ba ñu xam xanaa xamoo ne nit na da nga dem ca bitig ba man ak sëriñ fay mi mën nañoo ànd ca bitig ba sëriñ fay jënd paaka ma jënd paaka te ñu ñaar bokkuñ liñ koy doye paaka bi moom mooy xolli soble si paaka bi moom mooy dagg mburu mi nga xéewlu ci kontaan loolu reetaan waaye paaka bi tam moom mooy gaañ nit ki nit ki jooy taekwondo walla karaate ay mbir la yoo xam ne yeneen bi sallallahu sallam moo jàngale ne nit ki dafa war a défendre boppam yenent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne al muminu al qawiy wa ahabu ila allahi min al mumini jullit boo xam ne bu dëgër la xam li mu war a xam jàng li mu war a jàng defar yaramam bu baax a baax moo gën ku yambare kon nit ki mën na koo jàng waaye objectif bi mooy lan mooy dafay défendre boppam waaye daf ci défendre l'islam yàlla moo ñu wax wa aiddu lahum mastataatum mastataatum nag la wax maa gi dafa yaatu li dugg ci buur bëri na lépp loo xam ne nit ki man na koo jëfandikoo donte yenente bi nee na woon feey nañ jàngal feey ak ak ak sànni sànni xeec waaye ci loolu lañ tolloon alxuraan kenn du ko tënke noonu ci loolu la ñu tolloon ndax maa la iti leen mastataatum waajal leen seen bopp waaye waajal leen seen noonu ni ngeen jàkkaar lool ci lu ngeen man mën naa nekk taykondo mën naa nekk karaté nit ki day dafay defar ci sport la dafay defar boppam te biñ koy keree lool taxu koo jóg dafa am yoo xam ne du symbole violence nit ki mën na koo def ba pare fekk am na xam-xam fekk ràññee na xàmmee na mu jariñ ko waaye nit ki mën na koo def mu lor ko encore itam mooy koo xam ne ràññeewut xàmmewut moo tax lépp daal ci xam-xam lay dellu ak ràññee waa ji dafa jàng karaate ba pare ab groupe kar ko bañ ko kara mu mu mu mépp ba ñëpp xaw a ba mbooloo mi xaw a def nii mu jaar ci diggante bi daw ay xelam daw ak gërëm bañ àggee ñu ne ko ah waaye xaa jàngoo karaate mu ne ah summa sabila yassarahu daal moo ma gënal fu summa amaatahu fa aqbara ah ab groupe karaate rek nga jàng xamoo ndax yor nañ paak xamoo ndax yor nañ jaas xamoo lu ñu yore kooku dafa ràññee waaye itam bëri na koo xam ne karaate ba mu jàng ak taekwondo ba mu jàng moo tax mu songam mbooloo ñu dóor ko jaasi wala ñu dóor ko mu yam summa amaatahu fa aqbara kon yooyu mënta def jeexital mënta indi violence lu dul ne nit ki ci boppam moom moo nekk dafa am yu koy gunge daal li ñuy tuddee wàllu jikko ah li ñuy tuddee wàllu jikko bi ñu nekkee fii ci daara bi ñoom Babacar Sène ñoom bu ñu masaan tabas ceebu sëb bi ba baax indi ko boo nee sëb bi neex dañ naan dañ ko wàllu jikko nekkul ni ceebu sëb bi ci boppam waaye dafa am leneen lu ñëw waaye karaté ci boppam ak taekwondo bu fekkee dafa indi violence ci kii mooy dafa am lu ko wàllu jikko dafa am lu carax hmm, xam xam xanaa xamoo ne bëre kese làmb araamu waaye bu demee ba ne ah araam làmb kat baaxul alam dafa am lu ko wàllu jikko dafa am lu ca làmb si bu fekkee làmb dafay tasaare njabar bu fekkee làmb dafay indi bu fekkee làmb dafay tax góor ñi jigéen ji jaxasoo bu fekkee làmb dafay tax kenn dootul jullee ci sa waxtu bu fekkee làmb dafay intoxiqué nit ba kenn dootul xalaatati jàng sax làmb rek lañuy xalaat bu boobaa làmb dañ naan baaxut waaye làmb ci jëmmi boppam ñaari xale nekk fii ci sport la bokk moom da xas ñëw ba pare dañoo loolu nag gisuñ ko ci karaté bu demoon ba wàll si ak taekwondo ba mel noonu dañuy wax nit ñi nañ ko moytu waaye karaté lu baax la ak taekwondo jeexital bu mu def ci nit ki rek da ko caa fekk daanaka beneen bi lan noonu sax kon loolu. waaw xulóoli xulóoli waaw xulóoli daana kon bu ëpp solo bi mu ci wax rek mooy xam-xam ñu jàngal nit nit ñi bu leen jàngalee comme ni ma leen ko waxee woon ci mujtama makki ak madani mujtama bi nga xam ne société bi nga xam ne ñoo nekkoon doon dund madina ñoom dañoo jàngoon moo tax yenente ba mu fi ñëwee lépp comme discussion la dante sax ñu ci doon bëgg a rey yenente bi sax ci xam-xam lañ ko bëggoon rey bëgg koo vi bëgg koo bëgg koo assassinat bi ñu ko bëggoon def du ko mu fës yahudi waa banu nadir yahudi ñoo ko def ñoo ko tenté deux fois wala trois fois lañ tenté pour rey yenente bi te yëpp ci xam-xam lañ ko doon teg daanaka mooy defi pexe ba rey benn bi benn yahud lañu yebal mu jéem koo njabar xam nga loolu waaye yàlla moo ko musal beneen bi benn yahud lañ yebal mu def tooke ku jigéen lañu yebal mu def tooke ci xar mu doon lekk jot na saa sax mus jot na caa mus beneen bi woo nañ yenente bi ne ko dañoo bëgg a discussion dañoo bëgg a waxtaan waaye ñoom ñu waxtaan ci seen biir daan ne yenente bi kat buñ ko reyee nii wala ñu violé defal ko loo xam ne dafa fës dañoo ëpp doole ci dëkk bi waaye nañ def noo xam ne rek dinañ ko rey te kenn du yëpp mooy ne mbaar mi ñu toogoon ñu beral siège yenente bi comme bu ñu demee ci yenn waxtaan léeg-léeg ñu bind daal ne fii kat diw fi war a toog fii diw ñu ne fii Mouhamed a fi war a toog Mouhamed fa mu war a toog ñu ngi teg aw xeer wu ndaw xeeru ngande ci kaw benn waaye volontaire ne moom mooy yéeg ci kaw bu ñu waxtaanee ba ci digg bi moo koy moo koy pousse pour mu daal avant ñuy dugg avant yenente bi dugg ci mbaar mi yàlla xamal ko ko yooyu bu doon màkka la dañuy fekk ñu jël ay sebrit sànni ci kaw dañuy fekk seen yeneen bi di dox ñu gasal ko kàmb wala ñu dóor ko ni ñu def màkk rek màkk ñu ne xam ne asaddu durran min al aada abu lahabit ah dañ koy wax lu fës mais bu dee madina ci muus lañ koy defee ndax dañoo am xam-xam dañuy ñëw na yeneen bi damaa gëm loolu mooy naafeq bu ñu bu ñu wëlbati koo defi leneen mën nañ koo pexeel sax te moom du ko yëg waaye bu dee waa màkka dañ koy fësal ndax ñoom li ñuy def ànduñ yenente bi mu waxee ne ndax bu ma waxee ne giléem génn na fii dangeen ko gëm gaa yi ko waaw mu ne yéen waa màkka yàlla moo ma yónni fekk dafa dajale ñépp fi mu taxaw lañ ko saaga fi mu taxaw ci jamono avant muy buuse bi mu ne yàllaa ma yónni ba papaam ba nga xam ne moo bokk ak baayam baay moom moo ne ko tabban alihaza daawtana mooy abu lahab ki mu bokkal ki bokkal koo xam ne papaam la te loolu bu doon mu dina du kii kon solution bi bi gën a am kii mooy xam-xam bu ñu jàngalee nit ñi xam-xam mooy ne bu ñu demee ca télé ba léegi journaliste lañ fay fekk ab journaliste bu qualifié bu ñu formé boo xam ne dafay liggéey ngir xam waaye liggéey ngir bëgg ay vie kooku du nekk di tasaare violence ko tasaare mukk bu ñu jàngalee nit ñi xam-xam njiit lu am xam-xam la am njiit loo xam ne privilège yi Sénégal am yëpp dina ko exploité ba ndaw ñëpp am xëy te bu ñu amee xëy chômage daal di jeex bu ñu amee xëy ñàkk daal di jeex waa solution yi est warul woon a nekk xam-xam kese sax jeex jeex ñu yam ca kese mu yam jam ca far yonent bi sallallahu alayhi waa ji dana ko boo bëggee àdduna nooy def mu ne ko jàngal boo bëggee àdduna ak alaaxi alaaxira nooy def mu ne ko jàngal boo bëggee àdduna ak alaaxira nooy def mu ne ko jàngal jàng moom mooy solution bi amul beneen solution kun aaliman aw mutaalliman aw musta aw mustamian aw muhibban yooyu kese ñoo fi nekk ñeent yooyu beneen bu ñëw rek day yàq walaa takunil xaamis fa tahalak xaamis bi nag mooy koo xam ne bëggul ko jàngul te bëggul ko jàng kon mën nañoo tënk rek solution yi seen solution yi lépp xam-xam bu ñu jàngalee nit ñëpp xam-xam alxuraan moom aay bu njëkk a wàcc iqra jàngal tënk ko ci daara jàngal lépp ah yow euh, xamuk yàlla lépp moom moo taxoon mu wax iqra rek te indiwul mafulun bihi bi complément d'objet direct iqra jàngal mënoon na ne asharia iqra jàngal alquran iqra jàngal waaye dafa wax rek iqra jàngal daal di xasaf mafulun bihi te mafulun bihi ci luxa buñ ko xasafee al umum lay tegtale mooy lépp lañ mën a jàng lépp ah ba ñuy jógee fii di dem Égypte man ak ñoom seex ñi kàddu gu ñu sëñ mataar sëñ maxtaar naa la mu wax mu ne nu ñuy dawale avion sax bu ngeen ko mën mënee jàng bu ngeen àggee neen ko jàng waaye lépp loo ci jàng na nekk ngir yàlla na nga ci ragal yàlla médecin bi li muy jàng bu ko jàngee ba pare te yàlla kese tax di ko jëf te yàlla tax moo yow miy toog fii naan di toog fii naan bismillahi rahmaani naan alifun waxal baa waxal miim yéen ñaar yéen a am yool ba muy am moom ngay am lenn rek nga koy ëppalee mooy lenn li dolli ci alxuraan boo ko doon yow muy jàng fii durée di wala ngay jàng xadis wala xasida wala leneen yéenay tolloo waaye nag bu dee kii jàng alxuraan moom dafa am particularité mooy xaraf yi ci araf bu nekk boo jàng danga ci am dara bokkut ak ngay def lu baax sadaxa boobu nga xam ne moom ngay amee ci kalimatu tayba bokkut sadaxa bi nga xam ne moom ngay amee ci alxarful quran boo xam ne tudd nga ko loolu rek nga koy ëpple waaye ca sellal ga yéen a ca yem kon ñu yem foofu ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen jëfal di leen sant ci seen teewaay ak may nopp goo xamante ne si moom lañ may nopp ki nga xamante ne sii moo doon def waxtaan wi ndax yaakaar naa ne waxtaan wi jàll na eh, ndax waxtaan ñi koy taataan bu fekkee ne amul noppi leen amul dégloo leen amul may leen dul ñëpp dañoo ne teg xerawlu ko di ko déglu kon loolu li muy wane rek mooy delloo jaajëfal ki nga xam ne moo doon def waxtaan wi ndax li nga xamante ne si mooy ak xam jox na ko ndax yaakaar naa fii ñi fi nekk ñi ci ëpp dañ lañ ci réer kon buñ la dee déglu te baat bu mujjee wàcc ñu gën a joxal la yitte ngir déglu bi ci topp loolu day tegtale ne ki nga xamante ne si moo doon def baxs bi jox na ko ak xam ji nga xamante ne si moom la ko jox kon ñoo ngi jaajëfalaat ñëpp ci seen taxawaay di sant itam di jiital ci sant gi sëriñ Maxtaar naarloo ak ñi nga xamante ne si ñoo topp ci gannaawam ñëpp ci liggéey bi waaye di wàccee sant gi itam ba ci ñi nga xamante ne si ñoom ñoo yor commission bi nga xamante ne si ñoom lañ dénk lu jëm ci wàllu jàng ak njàngale ak orientation te ñu feesal toujours seen taxawaay waaye rawatina ci buñ agsee ci weeru koor gi ñu ngi sant ñëpp. di leen baaluwaat ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير